Thank you. sa jarbaata ngoog wuy sama ndey dem leen ñibbi wow wow wooy doyal nañ ci yéen réew mi bëgg jooy ngir yéen ñaari nit donc bëgg fee lëmbe wuy sama ndey dem leen ñibbi waaye ay ca leen ne doyal nañu si yéen xoolal bu leen fi ñëwati yéen na ngeen toog fu ngeen xam nag jëm leen doyal nañ si yéen xoolal ñàkk njaay moom moom naa muy doxee xoolal mu ne moom ay na Oh, la kaaw la muy ree way dërëm gaajo ña dërëm a ngi way gana jeesi yéen a ngi ñibbi way sama nday ñoom da ñuy ñibbi mënum bàyyiloo bàyyiloo bàyyiloo mënum bàyyiloo lan la xool xoolal le le le le le le mango la xaw ma ñool la xaw ma le le le lee lee du mango de d'accord d'accord déedéet du mango le metti ne daal du mango ndaamalaas la kon bu dul mango du ndaamalaas garab gi dina am ndam la. salaamaaleykum. waaw waaw maaleykum salaam. ça va na ngeen def. ça va. a ngi ci jàmm. waaw ça ana Ardo mu ngi ci biir. loolu looy dox ngay joxoñ fi lu tax joxoñoo fe Ardo mënta nekk côté mënta nekk côté nga ñëw rek joxoñ dina ki fii naan ana Ardo mu ngi fi. dama ko woo téléphone mu ne mu ngi ci biir moo tax ma joxoñ fi. Ardo nekk fi. Ardo nekk fi. naa ko léegi mu mu ngi ci biir. nekk fi. mooy xanaa laa jooñu. nekk fi. Ardo fi. waaw. ok yéen ñaan kii mooy kii mooy Manoumbé. Manoumbé la tudd. kii ñànku la tudd. ñànku laa tudd Manoumbé ñànku. waaw man ñànku laa tudd. est-ce que man dama leen a bëgg. boo ñu xamul maa leen doog a gis ni mais dama leen a bëgg. waaw ay dóor la rek. Oh. <laughs> ajees na ajees na la ñuy dem. yow mi bëgg wax <laughs> waxu ci yees na. waaw. <laughs> yow fii laa def yow fii laa def. xam nga. booy bu ma def fii bu ma def fii. yaa fekkee da ngay bëggante nga dem kii Fafam ndiyaayam nee na ku fi ñëw di ko seet ñu la ko nekk. nekk fi demal na ko fi mo ñuy def tel mo la leena tel mo la tel na la ngay jël témèr waaw ma jox ki témèr waaw ngeen jënd mburaaké bay ma ma def mbaras ci masculine vite fait ñëw ci yeen comprendre samay gañ ngeen xé mbaras ci masculine waaw lutax defo mbaras ci féminin man goor la nak ah hmm. nekkal nit way ok waaw waaw waaw dama dama doon dama doon teg dil xol xol dama dool dama dool li ngay dool mu gaaw wul wul yàgg sama gaañ leen. ful ful léegi-léegi li ma la wax. kaawale la. Hmm? après ah, naa ah. la de. jox ko saaf laa jël la wax. yow li xamoo ko da nga koy yàq. li li xamoo la la. wócc. <laughs> ah foog nga xamoo ko sax ah, wócc. te sama fooj daa la fa de keroog laa loon benn xale jóg ma ma ñànku sa fooj doo ko may ma ne ko yii yii benn la yii gars yi duñ ko gars yi ko defaloon duñ ko defalaat de benn ma ne ma ajë waaw ma tuuti la xaalis bàyyi bàyyi bàyyi ko boo gënee na ko bagage yi xamee ak yow booy léegi dugg seen kër xeex la de mais sujet ma fekk si nii lan na la ba dañ la doon sonal la ilaha illallah mais anyway dama leen a bëgg nag quoi. ñu de. non dama leen a bëgg ñaan yi ay bagage lañu sérieux. non beneen affaire la suñu kër gi neex instant bi. instant ma leen. Hmm. yaa ngi mel ni tàngal. waxal waay dama laa bëgg booy. <laughs> bul wax lu ma gënal nag. je te jure ma ree nee naa la bu may xew nga may ree. xam nga maa nga wax ngay bàyyil di ma ree sama côté la yëpp yaa ngi koy yëngal bee. ay waay. wuy ma li nga doon ñaan yokk. Euh, sama manager bi Amadou Ba Belgique am na contrat bu muy lijjanti déglu ma rek damay signé jour bi may signé laa lay takk. duurkat ah, fenkat bi <laughs> ah fenkat nga kat yaa fi ñëw fii wax ma ne ma yow sa xarit laa. wax ma ku fi ñëw di ma di seet pël bi. alors ah, ah, après ma wax la nga wax di ma yóbbu ma dem luy vélo. ma lekk hamburger. ak shawarma. ana dafa ma ko lu eh, def ci dara loolu kan nga. mën na bee waxal waaw. Eh, man sax dama fay la waaye grand frère boo xam ne day fen di eh, fen. dama wuy ma su fekkoon nag li ma ñëw sa kër yi noqu man noqaat la rek. leen nañ la waaw kaa ñu may ko. yow da nga ñàkk fay nekk ci saagante demal waay. kii mooy sama mag la. ah ñampo. ñankul ñampo waaw waaw waaw. dafa xew. <laughs> da daa xaw booy. waaye woy na ñëpp. waaw bay woy kii. waaw pour ma ñànku la ko benn kii la kii ma ñànku. kii ma ñànku Ndiaye. wa waa lay bëgg a woy nag. waaw daa bëgg a woy rek. daa mën a woy nag de. ah wuy ma fils. ah ba jom nga. jom naa koy kenn dugg kenn jëm. ah kenn génn. ah waaw. bàyyi ma dugg rek. non yow mënoo dugg. doo doo dem. eh sa ko. non mënoo dem Sall. xolofee xolofee. xolofee. xol ko. foo xolofee. xolofee buntu bi. naa ko tofal fa. dama dama ñibbi. Eh, non kay yow eh, man yàgg naa fee naa fee ñëw sama gaal la avant ngeen di ñëw ah yow tamit fii fii sama sa waay xam li nga fi wax dara dama nga ñibbi kii nekkul chef maay chef. dama ñibbi man la waaw moo neex a waxal ndax nga moom ku muy woy rek naa dinaa yóbbu bii kees. defoo ci dara dinaa ko def y a une pizza amul kër du dëgg ah waxoon nga nga ko ko ko sama ko jël ma ci jël ma koy jël ma koy xalaat def rek kii Tu nan ko tuddee sax loxo si poos <laughs> loxo si poste. am def loxo si poos muy ma hmm? loxo si Tu yow dégg naa waaye rek ngay woo xam bii yaa ko moom. maa tere bii. bi yaa ko moom. daal maa tere daal nga sax léegi def benn. bu xoolal bu bu bu këlee bu bu këlee bu kaale. waaw sama gàll. zéro lekk. waaw. ok Fils. ñambo. waaw ok. <laughs> ah loolu neex. nga doon poro. loolu dara fayu ko. jabaru pro. lu ma yàgg rêvé ci sama. am naa ni moo alaana. Ah. Ah. ça va bébé. ça va. ça va ko. est-ce que yaa ngi comprendre. eh bébé. eh damay su may wax doo ma waay doo ma xool. eh Faye yow yow nu mu demee nii yow boo duggee doo nuyoo nga taxaw bi di. kii la la nii yow. eh booy eh eh man boo waxuma yow le dama nuyu nuyu ma sax. da nga am lenn loo ak man. ah man loo ma yow bu leen ma fi indil benn riir. wax naa leen ko nag yow mën nga ne nii rek doo changé xoolal chéri demal après dinaa la wax dinañ waxtaan incha allah. yow yaa ñàkk fayda ay zone nawetaan ngay toog. yow dalal jàmm nga naa may zone la. ñu ngi ma. yoo xam nga lu. Copain bu dul woon si gàllankoor dama lay wàccale. dama ne la booy taxaw fii rek élaboré. booy Copain dama lay wàccale. booy. dama lay yow yi booy booy boo xam man de yow ko yaakaar eh comme dama lay ma bàyyi mu sedd sànday bi moo tax lu leer laa xam nga ma xam naa yow ñàkkaas ni booy yow yaa ma may sa boo booy may taxaw ci wax ñoom ñuy tontu yow ñu ne ma dalal yaa ngi bëgg a ëppal ku xamul buur saay na xam buur deer na du sëba du wax ju neex du yëre bu cher du dara nga bëgg maa amee xoolal du ma ko nangu de trop c'est trop doo feer ah, yow yaa ko bàyyi ma dugg waxoon naa bu kenn duggaat damaa bëgg cent franc dama dof trop yow. mu nume gars yi gën nañ ñu waaye dinañ am foleeram fii de. garaawal nañ ko gérer da ngay dem si fi day dox da ngay kii. yokk kay. taxaw takk jox waaw. taxaw kii yee jàkko daw jëm. doo toog nga gérer ko. gérer lan. toog nga gérer affaire bu ko 그래? 그만하자는 얘기 뭐 홀로 띵. 띵 띵. 그만. 그만. 스킵. Chấm đi Ok cháu chờ Tụi em nhớ đấy Kita tăng khốn Tăng bulu khốn quá gì lên đây Nó có ai chơi vụ lắm sao đấy Đánh cao cống Mình mình nhìn được em đâu mà làm lên đấy bi ngay am bakkata kenn nabu la bi ngay modde la si laa jël sang la ba nga set ngay commencé mbaal wax ma ay booy taxaw ay booy neewtaan yi naan da da da leen mbaal man dooma nday ay eh, dooma yàddule. mais dañuy jëkkaat jaww ba pare gars yi takk ñoom ñu leen di leen li ñàkk a normal booy ma fontoo may wax ngay tontu. dinaa la tontu la ah yow loo am man la sa bopp waay mun naa noo mel. yow soo xamee ndaanaa ni man la. soo xamee ni bon man day fontoo de. kay ñu ngi coono. ah. ah.